force de l'ordre police gendarmerie armée li ñuy woowee euh, les force de défense et de sécurité mm-hmm. ñu ngi am hauteur am nañ hauteur de mm-hmm. mm-hmm. wax nga maa ngi koy wax sànq ci ci tubaab on a d'excellents éléments ci police su may jël dama naan majorité bi ils son hyper bons gendarmerie même chose armée nationale moom gongo lu ñuy mën a wax ni chapeau mais xam nga lan mooy wax bi Euh, ñe leen kan moo leen rax lu tax ñu rax leen kan moo mayee ñu mën leen a rax ba mën yenn yi di am Mansour mu ngi koy wax ci force de l'ordre yoo xamee ni dañuy mel ni ay nervi yi nga mën leen a jaawarle ak ñuy wooye ay ci ay jamono kalu bleu wala xawma lan marron nuñ koy euh, ñoo ñu àndoon ak Macky Sall au début parce que lañ doon sol mm. yenn saay mais on a sorti ici un communiqué pour interdire lu port de certaines tenues yoo xam ne dafay nuru garde rapproché wu président de la république fii lañ ko génne ci communiqué ministre de l' intérieur ministre des forces armées xaw ma ban ministre encore di xam le ni loolu dañ koy tere loolu moo indoon lan ñu démanteler lu ñu woowee les milices ñu naan ay nangam sécurité ak nangam sécurité te la ñuy soloo bu ñu taxawee nga mën leen a jaawatle ak garde rapproché par exemple yu président de la république wala ñi nga xamee ni dañu bokk ci Euh, brigade d'intervention de la police wala GIGN euh, di euh, ñi nga xam ni ñoom ñooy corps d'élite bu gendarmerie boobu police gendarmerie armée les corps militaires paramilitaires ñoom ñëpp ils sont professionnels ndax dañ ko jàng yàgg ci. lan moo waral fitna bi. ñu jëmal le plus souvent ci askanu Sénégal. non du ñoom ñooy indi fitna xam nga fitna bi fan la c'est l'état central. xamul luy fitna bu jógee ci état central. mooy man ministre de l'intérieur man ministre des forces armées mi yore gendarmerie man ministre nangam bi nga xam ne am naa ay takk yu nekk sama yoo xam ne maa leen chef nuñ ko mën a waxee. ma xool situation boo xam ni mën naa fa sax bañ a yónni takk naa yónni sociologue bi kii doon wax léegi wala psychologue bi Mansour doon wax léegi naa yónni kilifa diine bi nga xamee ni am na fa kàddu ca koñ ba wala ca gox ba. pour kooku jéem a seet nu ñuy waxtaanee ba nga xamee ni fitna du am ni ñu duñu génn manifestation du am euh, responsabilité état état xam nga lan situation am ne Ousmane Sonko moo def nangam diw moo def nangam <coughs> mais balaa ngay àgg foofu seetal nooy fexe ba situation boobu bañam am ci naka mooy diw la ñu wax ne dañ ko topp ci yoon bañ ko waxee léegi ça fait combien d'années pourquoi est-ce que. depuis le début de cette histoire là on l'a pas réglé. Mm-hmm. bu ñu ko waroon jàpp ñu jàpp ko. je n'ai absolument rien contre son ko absolument rien du tout mais pour man l'État a failli et l'État a failli depuis le premier jour. tuumaan lañ la nañu tàmbali mbir yi très rapidement soit ñu teggi tuuma mën la bàyyi nga libre mën a dem ci li nga bëgg a dem wala ñu confirmer ni effectivement liñ la liñ la tuumaal yaa ko def. ñu tëj la ca lañ la war a tëj teg la daan yi ñu la war a teg ci wàllu woowu mais qu'est-ce dañ ne non non tuumaal nañ ko waaye non tuuma boo xamee ni boo xoolee tout le dossier ci la ñu wane yëpp ci la ñu wax yëpp nga xam ne fii am na lu ci lu ñuul am na lu ci dul dëgg nañu waxante dëgg rek am na loo xamee ni dans ce dossier je suis pas dans le dossier euh, liñ naan je suis pas dans secret des dieux la xew seen diggante fekkewu ma ko kenn nag ci doom réewum Sénégal fekkewu ko muy pro Pastef muy anti Pastef muy contre nangam muy état amu ci kenn ku fekkee ci biir eh, salon de massage ba ku fa nekkoon. Mm. ku mën a wax ne nit lii am na gis naa fee nit yëkkati kaamil di waat naa ne nangam amul yaa ko fekkee. personne mais l' sa responsabilité depuis le début su ma nee l' état est pas le régime ay Macky Sall APR wala non c' est l' état central. nga xam dafa am ay institution président euh, ministre nangam nangam ak nangam responsabilité bi xam moo nekkoon lan fonctionnement justice ñu teel a may justice ay jumtuwaay yoo xamee ni dina mën a def liggéeyam setal wala confirmer tuuma bu ñu ko setaloon depuis le début kon deux kon euh, manifestation yi am quatorze mois du am kon lii xew nii actuellement du du am te ñaanuñu ko lii xew yi ëllëg tamit il faut que ñu anticiper ko on nous dit Euh, audience spéciale le 23 euh, euh, muy mardi les gens qui commence waxuma sax xam nga sànq yaa bi jël décision ne élèves yi duñ jàngi am na parents d'élèves yu mel ni man dañuy naan sa doom doo jàngi. bu parents yu bari ne suñu doom du ñu jàngi IA bi amul beneen possibilité lu dul ne ni nañu far tëj lépp parce que parents yi responsable. et tous les parents sont responsables ndax bëgg nañu seen doom jamono ji amul waajur bu dul tiit par rapport ak ay doom yuy jàngi école wala yuy mais xale dina génn vingt deux heures ne xaar ñu petit camp ci koñ bi mhm, mhm. ñaata yoon parce que mhm. dem taxaw ci suufu poto lampe bi euh, waxtaan wala petit camp wala n'importe quoi wala quatre cases ci lañ ko daan defee di tennis yow nga ne nag léegi yow je vais priver de liberté tout ces gosses là tout simplement parce que y a une situation tendue qui se pose l'État est principal responsable. situation tendue boobu Birahim Touré yaa ngi koy wax ñu gis ni kenn ci ñi layool Ousmane Sonko di Juan Branco.